waaw d' accord d' accord incha allah suba xam naa suba suba loolu suba dana mën a def d' accord incha allah amul problème d' accord d' accord d' accord. suba d' accord aywa. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. taxassantu bi zil izzati wal jabaruuti. واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اسرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والتعون والبلاء لبشك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا nag رك في وقتاني ci كامل بين وراكما سيت وقل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كانت كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله وعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم الى اخر الايه yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa watlu na nga jàng yow Muhammad alayhim ci ñoom yéefari na nga jàng na nga leen nettali naba a nooxin xibaaru yàlla noox jaar-jaaram loo ko loo leen tey nettali na nga leen nettali id waxtu wa waxe moom noox li xaw mi yi ñeel nitam ñi lan la leen wax nee na leen yaa xaw mi ee eh yéen samaw nit inkaana ndeem dafa nekk kabura di tiis di tiis maqaami sama sax di ma sax bu diisee aleykum ci yéen wa tazkiir yi ak waar gi nga xam ne maa ngi leen koy waar te loolu waar gi ma leen di waar bi ayaatillaahi ci kaawtée sunu borom yi man day lu mu tiis tiis ci yéen man loolu man du problème ci man xam leen ni daal li am ba des mooy man tawakkaltu faalalaay ci yàlla képp rekk dong tawakkaltu ca laa sukkandiku du ci keneen courage boobu mu am nag dafa am solo su dee woo ndax noox koo xam ne woote na junni at yu manqué juróom fukk ni nag loolu ma leen di woo ngeen bañ bu mettee ci yéen walla mu diis ci yéen yàgg gi ma yàgg di leen woo di leen waar di leen fàttali sunu boroom su demee ba diis ci yéen xam leen ni man faalew leen fa alallaay ci yàlla kepp rekk dong tawakkaltulaay sukkandiku bu leen mettee nag fa ajñoo kon boole leen dajale leen amrakum seeni man-man wa shurakaakum ak seeni way bokkaale ña ngeen yaakaar woole leen ñoom ñëpp su ma topp laa yàkkoon nekk amrakum seenu mbir nag xummatan di nekk lu ñu nëbb aleykum ci yéen firal biral leen ko la ngeen di def bu leen ko nëbb dajale leen seen man-man li ngeen di def lépp te leen ko nëbb suma ax doo ngeen ngeen wéy ngeen départ illee jëm si ci man ngeen def li ngeen ma bëgg a def wala tun sirooni bu leen wuñu ni ko ci man dara bu leen muñee ni ko dara man faalew ma leen dégg nga wax ji xam leen nag fa in tawalaytum ndeem da ngeen dëddu ci waar gi ma leen di waar moo ne de fa laaju ma leen de min ajjirin ci waar gi ma leen di waar ngeen war koo gëm laaju ma leen ci dara te itam in ajjiriya déet pay gi nga xam ne maa ngi koy am ci yoolu waar gi ma leen di waar illa Allah ndare bu dafa warlu sunu borom da ko warlu ma nga ca yalla tamani tamu omitu diga na ma ana ko na ci ma nek minal muslimina di bok ci way wamatuñu kon kay kom mom laaju ma len ci dara laaju ma len ci pay suma len ci laajoon pay sax man ngeen ni intérêt ngi ci naka jek walu yalla nak lolou da ci bare boo demee ci yenn téere yi ñu ngi wax ni jàngale di fayu jàngale xam-xam di ko fayu dafa dagan ñii ni dafa xaraam jàngale di fayu dafa xaraam waaye boo demee ci e, risaala nee jàngale di dagan jàngale di fayu dagan na waaye ka sartante ceeg mokkalu walla manu ka ngay jàngal waye bu mënul rek kon lañ kon mokkalul lañ lay fay daganu waye bo démé ci yenen téré bo démé ba ci sarha ci fi ñu tollu ci sarha ruhul bayan da nga gis ni jangale di fayu amna ñu ni daganul waye ñi ni dagan na mo gëna bare su fekke nak dafa dem ba nga xamni li ngay jangale ci diiné gox bobu yow kep rek dong ya ko fa xam légui so obligé nga jangale dootul dagan nga ni fokk ñu fay ma ma door a jàngale déedéet mais bu ko fi ñeneen xamee rek bu fi ñeneen xamee dagan na nga jàngale nga fayu waaye nag ñi ngay jàngal dañuy man dañuy xam mu door a dagan wàllu yàlla wu ci gën a bare rek mm, foog nga doxal inna ajriya ila allah mu ni wa umitu an akuna min al waaye nag xam nga fakazzabuuhu ba mu wootee wax leen loolu yépp yàlla nii yàlla naa waar leen fakazzabuuhu dañ ko weddi fa najey naahu ñu musal ko waman ak képp koo xam ne maawoo ànd na woon ak moom fil fulki ci biir gaal ga am na ñu ne gaal ga ñeen fukki nit yu góor ak ñeen fukki nit yu jigéen ñoo ca nekkoon juróom-ñett fukki nit ak yeneen yi ñu denaaw ak yeneeni yàlla bind wajaal naa ñu mu jël leen xalaa xalaa ifa ñuy way wuutu ca suuf sa ñu war fee des bu ñi ñi ñu alak dee wa axrax naa ñu labal allazina gaañ nga xam ni kazzaboo weddi nañu bi aayatinaa ci nu kaawtéef yi yi nga xam ne joxoon nañu ko noox ñu weddi ko ñu mbug ña ko weddi nag ñu mbugal leen waaye fansur toujours rek na ngay xool kay fa kaana naka lay nekke aqibatul munzirina munzarina mujjug ñi nga xam ne ñoom lañ leen di waar ñi ñuy xupp ci seen ñàkk gëm del xool toujours fa ñu mujj boo gisee yàlla ne ko waxal histoire yonent yàlla noo nettali ko sa gaay nettali ko sa boo gisee mu wax leen ko mooy dafa bëgg ñoom ñu waaroo ci waaroo ci mën moytu mbugal mi mën a gëm yàlla waaye bu fekkente ni bi ne alquran waaroo woo ci histoire yi ci nettali waaroo wu ci dara waaru la ci daanaka yow alxuraan moom dafa jaar sa nopp yi rek jàll bu ma bu nee ñun day màggal boppam bu nee ñun day màggal boppam rek waaye bu dee ñun day màggal boppam waaye yàlla kenn la ñu yónni min baad yi gannaaw yonte yàlla noox ñu yónni rusulan yeneeni yonent ilaa xawmihim ci seeni nit yónni waat nañ fi yonte yàlla ibrahima ciy nitam ñu yónni waat fi yonte yàlla huud nitam yónni fa saali ci aw nitam fa jaawahum ñoom ñépp indi nañu seen nit ñooñee ñu yónni ci ñoom bil baynaat ci ay kaawtéef ci ay kéemaan yu leer nañ waaye fa maakaanoo loolu taxul ñu nekk li yoominoo pour ñu gëm bi maa ca laan kasa boo weddi nan nañu bihi ca loolee ñu weddi min xablu ci jëkk langa nga xa ña doon weddi lañ doon weddi bu jëkk di yonente ya ba tax ñu duma leen ca weddi googee ñoom bi yonent yi ñëwee tombeek ñoom ñu woo leen taxul ñoom ñu gëm te waroon nañoo xalaat duma yi ñu duma woon ñu jëkk ñi ca bañu gàntoo tax ñoom ñu gëm pour bañu dugg ci duma yi waaye nag dañoo kaste seen xol moo tax yàlla ne kasaalika naka noonu nat baw noonu la kaste ala xuloobil mu'tadina ci xol woy lu duñu mën a am mukk leeru ngëm yàlla su ma baas naa topp nu yónniwaat min baadihim gannaaw demuk yonent yële ma wax Muusaa yonent yàlla Muusaa wa Haaruna ñu yónni Muusaa ak Haaruna yonent yàlla Muusaa yonent yàlla Haaruna ilaa Firawna ci Firawna lañ ko yónni woon wa iihi ak kàngamam ya bi aayaatinaa ñu jox yent yalla musa sunu kaw TV sunu keemaan yi di juróom ñent waye fastakbaru dañu rëy rëylu dañu ngande ngande lank baña gem yalla yàlla wakaanoo ñu nek xamanti nit mujj mine yu continue ci seen wedd yalla ga def ay bàkkaar waaye nag falamma jaahum ba nga xani musa indil na haqq alxaqu yu leer ya, deug ga alxaqu lay yu leer dëgg ga dégg fan la ko indi fan la jóge min indina mu jële ko ci ñun yàlla xaaloo ca lañu waxe ni kiimaan yi Muusaa dendi day wax rek min indina xaaloo dañoo wax ni inna haasa naka kii di wax la sihirun ak njabar la njabar la ab njabar la mu biinun bu di aji bir dig njabar innahaa saa naka lii mu nuy wax nun waxul la saahirun la sixrun la wax kon dani lii ñu yent yàlla Moussa di wan ci kaawteef yet weeg yi muy sànneeg yi mu dugal loxaam génnee ko muy weex ak yii yépp la séerun ak njabar la mu biinun bu biir xaala daa di wax Moussa yent yàlla Moussa yalla ne mu yonti yalla musa ni mo ndax da ngeen di wax lil haqq ñeelu deug lama jaakum ma nga xani dikke na len asirun mo ndax ndax ak njabar xaasaa day mel na lii qaala Moussa yonte musa Moussa moo ne attaqooloona mooy yéen ndax li ngeen di wax lil dafa ñeelu deug lama jaakum ba nga xamni dikke na len mom yonti bi nga xamni dikke na len ak ak kéemaan yu bare te leer asiirun moom muusaay wax na mu ndaxu njabar xaasaa dana mel na lii <laughs> mu ne walaa yëfliwu du bég mukk asaahiruuna way njabar yi njabar yi bu yàlla ne duñu bég kon fu jabar di bége njabar lu ko kiliyaaye wër wër lu xaalis ba bare bare balaa dee mu xam ne du bég ak njabar njabar yàlla yàlla musal xaaloo ñu ni yont yàlla Muusa gaayam yi muy wone ko aji tanaa ndax danga nuy indil ay kaaw téef li tal fi tanaa ngir nanga nu delloo amma ca la xam ne wajat naa amma wolif ñu wacc fa la nga xam ne wajat naa fekk nañu aaba ana sunuy bàyyi àllihi ca jaamug loolee wataakoonu daal di nekk nag làkkuma aha yéen da ngeen a bëgg mu nekk làkkuma ñeel leen yéen ñaar Muusa ak Haaruna da ngeen bëgg mu ñeel leen alkibriya u cër yu rëy te mooy nekk buur ci kaw suuf fil ard da a bëgg a yar nguuru Misra wamaanaam déet ñun ñi ngeen di convaincre bi moo mi ne na nuy yàgg ba nu gëm làkkuma ñeel leen ñoom ñaar yéen ñaar mun leen a fexe ba nga gëm leen yéen ñaar wa qaala daal di wax firawun firaaw ni leen ituunii indil leen ma indil leen ma bi kulli saaxirin ci béppum njabar alimin bu di xamaakoonu njabar Moussa dafa ni jaay ak njabar ayco dugg leen ci dëkk bi ci dëkku àll yi fa njabar nekk na ngeen leen jëli indi leen ñu teew ci sama kanam léegi Moussa xam ne li muy jaay amul A ñii njabar ya nak mom. fala ma jaaba nga xamni dik na asaratu njabar ya jabar ya ba ñewé xala wax nañu lewum ñeleen Musa yent Yalla Musa mu jabar indi nañu mbaam ñii indi ay boom ñii indi ay yet lu neñu def ko ñëw nañu ak seeni man-man firaaw naa ngi toog ak i gaayam yent yàlla Moussa nga taxaw ne ak Haaruna Moussa ne leen comme ni ngeen seeni njabar ak seen man-man léegi nañ def nii imma benn an tulqiya ngeen sànni sànni loofu leen ngeen sànni ngeen sànni seen yat yi su ngeen ko sànnee mu nekk jaan comme comme ni ma koy defee ah walilahi comme daal yii ngeen yaakaar imma benn an tulxee ngeen sànni wa imma wala benn nax nu ñun ah an wa imma benn an naakoo ñu nekk nax nu ñun almul xiina di jëkk a sànni bu neexee ngeen jëkk a sànni def seen kéemtaan bu leen neexee ma jëkk def ñu taxaw ne ko sànnil mu sànni leen déedéet alxoo sànni leen maa la nga xam ne antum yéen mulu xoon a ñëw ngeen pour sànni ko ñëw ngeen pour sànni seen yedd yeeg seen yéen sànni leen falama alxaw ba nga xam ni sànni nañu seen yet yaag seen buum yëpp xaala daa di wax ni yéen ñi daal maa li nga xam ni jiitum dikkee ngeen indi ngeen bii ca loolee dal asiiru dëgg-dëgg loolooy njabar ga nag yéen ñu doon wax man njabar laa yéen nag lii ngeen indi nag moo di njabar nag innal waaye nag inna laa naka yàlla sa yubtiluhu léegi mu yàq njabar gi du yàgg arfu tan tan fiis dafa am arfu tan wiis am sawfa ak sa ci grammaire dafa am sawfa mooy arfu tan fiis li muy wax day xaw a sore balaa muy am sa nag arfu tanwis la li muy wax léegi mu am mu ne na naka yàlla sa yubbutiloo léegi mu yàq seen jabar yi ñu daal di sànni seen yat yi yet yi nekk jaan ñuy sànni seen yat seeni buum buum yi nekk jaan te Moussa moom it loolu la na na ma def ah kon mbir mi day daldi mel na kon dañoo yem di garaat ndax Moussa loolu la nar def waaye yonte yàlla musa rek ni leen nag inna laa daal naka yàlla sa yubtiloo dana yàq lii ngeen di def ndax inna laa naka yàlla laa yuslihu du yëwanal mukk amalal mufsidina jëfu way yàq ñi su ko dee wayu xequ daal di saxal feeñal allahu yàlla a dëgg ga bi kalimaat yi ca baatam ya mu te mooy baat ya mu diggante woon ak ne koy Moussa bu ragal yow yaay not yaay am ndam yàlla nag wan na ko loolee keroog jox na ko ndam la walaw kariha doonte nekk na al mujrimoona euh, walaw kariha doonte sib na bañ na Muusa am ndam al mujrimoona def katu ñaaw te way bokkaale ñooñu ent yàlla Muusa bu mu sànnee yatam jàngi ngeen histoire bi yat wa nekk jaan lekk seen jaan yépp ñoom sànni woon nañu yat yi sànni buum yi am ci yoo xam ne dañoo jël ay këwusu diw ci godoron sànni ko ci naaj yi bu tàngee day battar ñu ko ñii di dugg ci gimiñu mbaam gi taxawal mbaam dugg ci gimiñ gi génnee ca gannaaw lu ne def nañ ko kiimtaan bu nekk yonent yàlla mu sànni tekk rek waaye ba mu sànnee ya tamit laay laay seen lépp la lekk jaan ji mel na sax ba mu lekk yëf yi dafa ŋaang wuti firaaw na ba firaaw na sax am na lu mu fa def fa mu toog maanaam yëgatul boppam ku yëgatul sa bopp nag lu ne sa bopp mën na koo def mën na la koo sant ñiy déglu ñooy xam li ma wax jaan ji Moussa jàppaat yatam mu nekkaat mu nekk jàppaat jaan ji mu nekkaat aw yat wu nekkoon ñoom gisatuñu nag ah ci xaaloo amana bi rabbi rabbi Moussa wa Haaruna ba ngeen jàngoon ca lañu sar xollee nag njabar yi daani ñun kay gëm nañu musaa mii gëm na ni yonent la moog Haaroona mii firaaw na niin aha yéen da ngeen maa kompaloo lii pexe mu ngeen nasoon la lii la makkarun makkartumoo fil madina lii démb ngeen ko nasoon nas ngeen ko bu yàgg ñëw fii waaye da xam ni man maa fi nekk naa leen rey ñii danaa dagg seen loxam ndeyjoor dagg seen tànku càmmoñ ñii danaa leen salab danaa leen sal mooy daaj naa leen tànn daaj leen ci ci ci garab yi ci leen fa ba ñu dee waaye daal keroog ba musaa defee noonu famaa amana gëmul li musaa ñeneen ci yàlla Moussa illa zuriyatun ndareb kuréel ndara ay sët min xamihi yu jóge ci nitam ña moom Firawna alaa xawfin ñu gëm nag ak ragal ci ragal min Firawna firaaw na wa mala ihim ak seen mbooloo ma lan moo lan lan la ñuy ragal ci firaw naa mbooloo ma ragal nañu an yaftinahum ci ñu fitnaan leen ci ñu mbugal leen ndax lan wa inna firaw na naka firaw na laa leen ku ngander ku rëy rëylu la fil ardi ci suufu misra isit lañ boo lii la xewoon wa innahu naka luy mbir wa innahu naka moom bokk firaw na la minal musrifina bokk na ci ñi nga xam ne ñoo yàq suusi si ñoo jéggi dayoo ñoo weesu fa leen yàlla yem loo yent yàlla Moussa ñi ko gëm xaw nañoo tiit ndax ragal nañu firaaw na boom leen moo ñi mu àndal waaye wax xaala wax na Moussa yent yàlla Moussa ni yaa xaw mi yéen sa nit in kuntum dem nekk ngeen amantum di gëm gu ànd ak wóolu billaahi ci yàlla kon faale ci yalla kep rek dong tawakkalo ci ngeen di sukkandiku in kuntum dem nek ngeen muslimina di way deggu ci seen womatu gi womatu nañ ba pare mu len in kuntum muslimina kon da nga nan in kuntum dem nek ngeen yeen muslimina di way deggu ci womatu gi ngeen womatu ci ma fa qalo ñoom ñu tontu musa ni ko àllallaay ci yalla moomu nga wax kep rek dong tawakkal naa ci lañuy sukkandiku ñu wàññi ko nag ñaan daani rabbanaa yooyu sunu borom laa tajal naa yàlla boo ñu def yàlla boo nu mucc mu jël fitna tan ñuy fitna li xaw mi lil xaw mi nit ñi azaalimina ñe di way tooñ wan najji naa yàlla na nga nu musal ñoom ñooy ñaan de bi rahmatika ci seen mënde minal xaw nga musal ci nit ña alkaafirina na di way yi wa aw naa ñu déey ñun yàlla ilaa Muusa ci yonte yàlla musaa ba aqiihi ak mbokkam moo moomee di haaruna an tabawaa ñu wàcc ñoom ñaar ñu jàpp ñoom ñaar li xaw kuma ñeel sin ne ñoom seen nit ñi ñoom ñaar bi missa ci missa bu yóotan ay néeg wàcc aloo yàlla ne def leen bu yóotakom seen néeg yooyu xiblatan muy seen palaasu jaamukaayu yàlla xiblatan ngeen def ko muy palaas bu ngeen di jaamoo yàlla yi bu ngeen ma dee jaam man yàlla comme amagu leen doole dee leen ko nëbbu di ko def seen biir néegi yi waaye wa aqimoo na ngeen mottali na ngeen saxal asalaatu julli yi wa bashiri na ngeen bégal almuminina jullit ñi ci ndimbal sunu borom bu mu leen di jox ci àddina ak bu ñu dee àjjana jin jëm nañ leen ko wax ba mu leer wa qaala wax na Muusaa ente yàlla Muusaa ni rabbanaa yow sunu borom innaka naka yow yàlla aatayta jox nga firawna firawna mu bon momu wa malaahu ak kangamam yoy jox nga len sinatan tar bu mat sëkk wa am walan ak alal ju bare fil hayati ci dundu gën nak adunya ga di aji jeex ak jeeg ga de aji jeeg ak jeex adunya ga de aji jeeg ak jeex fi nga len ko joxe kon rabbana yo sunu borom jox nga len lolou li dilo ngeen na ngeen na nga sank an sabilika ba ñu réer ba ñu topp saw yoon rabbanaa yow sunu borom atmis yàlla na nga marmaral yàlla na nga maasale yàlla na nga masaxu ala am waalim ci seen alal ja was dut te yàlla na nga takk dëgëral ala xulóom ya falaa yoominoo gëm xataa yarew bañ jàkkaarloo rek ala saaba mbugal ma al alima ba di aji metti ñoom fekk mbugaluñ leen dumawuñ leen rek du tax ñu gëm am na ci nit ñi ba léegi am na ñoon loo leen mën a sant feeg duma ay duma ànd ci duñ ko baa duñ ko def looleen mën a tere feeg ay duma ànd ci duñ ko ba xaala daa di wax moom yàlla ne xat ci dëgg-dëgg ujibat wuyóof na daawatukuma seen ñaan googu yéen ñaar te yàlla masaxu na seen alal ja soppi na ko def ko doj firaaw na taxul mu gëm ba ni mu labe yàlla ni na Muusa ak Haaruna fastaqiima jub leen yéen ñaar sax leen ci yónni gi ma leen yónni ba ba ma li jot ba duma jot ma duma ñee leen weddi waaye wala tataabiaani bu leen topp yéen ñaar mukk sabiila la si na yoonu gaaña nga xam ni laa yàlla mun a xamuñu ci lu ñu nekk te mooy firaaw naa ki gaayam am na ñu ni am na ñeen fukki at di leen woo wajaawas naa ñu jéggale bi bani israil a giir bani israil albahra géej ga am ñu ni géej ga siwis la fa at baahum topp le leen ca jéggi ga firawnu firawnu ndax waaye nag la ca xew baaxul de firawna topp na leen wa junuuduhu ak lëlam ba mooy soldaaram yi baxayan ngir bew rek wa àddu woon akuk nooneel ñaar yi rek a tax ñu topp firam fi Moussa Moussa daw ak gaaye ba jub géej gi mu ni yàlla ah géej gi traversé nañ te firaaw na jege nañu de yàlla ne ko yow yaay not jël sa yat wi ci gàttal rek nga dóor ko ci géej gi mu dóor ko ci géej gi mu nekk ay yoon Moussa jaar ci ak gaayam ba jéggi ca wàll wa waaye nag firaaw na bi mu dawee ba ñëw gaayam yi dugg firaaw na dafa xaw a taxaw xawa a ndax gis na ni lii ndox la woon kon la ko def suuf na ci teey waaye nag gis nga yàlla rek xëy na bu yàlla mu ne fexe na wax la waaye yàlla dugal na ko ci biir géej gi ci coobare xataa ay sa adrakahu ba jot na mu firaaw na moom bañoon ragaloon lan moo ko jot alxaraxu lab ga xaala mu wax ne amantu gëm naa wóolu naa ne naka luy mbir tey mbir laa amul benn buur illa lu dul buur ba nga xam ne amanat gëm na banu israila giir banu israila bii ca buur boobee wa annaa man sax daal minal muslimina bokk naa ci way wommatuñu jullit laa léegi dem bay dee wax lool am na ñu ni bi mu demee bay làpp dafa naroon wax laa ilaha illallah te bu ko waxoon day dugg aljana jibril daal di nëq ci ban bi saañ ko ci gémmiñ ga mu mu mu njuuy wax ja xam nga laa ilaha illallah moo gën a gàtt laa ilaha illa lazi amanat bii banu israila wa anna mina muslimina gudd na torop waaye nag ñu ngi noonu ñu ne ko waaw yow daal alaana léegi dangay gëm waxaat ci dëgg te ci dëgg-dëgg asayta mayoon nga sa boroom dëkk ca xablu la jiitu lii nga war a gëm wakkunta nga nekk minal mufsidiina ci ñuy yàq diine ji ak suuf si fal yow ma tey gaa yi ba mu faatoo nag ba dee am ñu ñëw ci gaayam naan firaaw na kët deewul ndax lii moom mënut a nekk yàlla nag daane waaw comme yéen a ngi ci sikki sàkka xaaral ne suuf si ni ndox mi génneel firaaw na mu génne ko sànni ko ca tefes ga mu ne fa dëng mu ne suuf itam bu ko lekk yàlla ne ko nag fal yow ma tey yow firaaw na nu najjiika daañu musal la daañu la musal bi ba da nekk ak sa yaram rek yaram mi daañ ko musal ba suusa lekk ko ndox ma lekk ko li tàkkoon a ngir na nga nekk nag aayatun aayatan di kaaw téef di kéemaan li man ñeel gaañ a nga xam xalfaka ñi ngi la wóotu nekk sa ginnaaw ñu xam ni xel dee nga waaye naka sira naka ñu bare mi ne ci nit la xaafiloona way sàggane lañu an aayaatinaa wëlif di gëm sunu kaawteefi bu dee léegi itam wa inna kasiran min naasi an ayatina la xaafiloon wa inna kasiran naka ñu bare lool léegi la xaafiloon way sàggane lañu an ayatina wëlif di gëm sunu laa alquran ñu baree bari dañ koo sàggane gëmuñu ko wala xadd ci dëgg giñ naa ni ci dëgg daal ba wax naa wàccee woon nañu gi bànni israila giir bànnu israila mu bawa a siddiqin wàccee dëgg te mooy wàcceb tiraanga te mooy ca ak misra wa razaqnaahum wërsëgaloon nañ leen mina tayibaati ci yu tee yu neex ya waaye nag wa maxtalafoo wuute wuñu de bëggoon nañu ñu gëm waaye ñoom ñu weddi xataa jaawam bu dikki leen aleel mu xam nga ni anna inna rabbaka naka sa borom yax di dana ba baynum seen diggante yowmal xaamatu bis benn ci fi maa taala kaanoo nekkoon nañu yaxtalifoona doon wuute gëm fii ca loolee yàlla ne fayin kunta ndeem nekk nga yow yonent yàlla Muhammad fii sàkkin di sikki sàkka xam nga ne bu ko waxee ñun lay wax waaye waxul yonent bi waay ndeem da ngay sikki sàkka mi maa ca naa ne anzal naa wàccee nan koy ileeka ci yow ci ay xese ak ay jàngat ak ay farata ak i sunnaag yu demee noonu fas ali laajal àll si na gaañ a nga xam ne yàqara oona jàngoon nañu ba pare alkitaaba tawraat min xablika la li jiitu ngay ñëw ak alquran soo leen laaja daañu xam ni ñoom daañ la leeral ni la lii ñu lay jàngal ci alquran lépp dëgg la ndax tawraat indi woon na ni danga ñëw danga leen jàngal lu mel nii la xadd ci giñ naa ci dëgg ni jaaka dikke na la la xaqu dëgg ga min rabbi gu tukkee ci sa borom kon falaa tàkkoo nan na rikk waay bul nekk yow yeneen tebi di sikk sàkka minal mumtarina bokk ci ñiy déng-déngi wala tàkkoon na bul nekk itam mina si ne di bokk ca gaañin kasa boo weddi nañ bi ayaati laay ci kaawteef yi sunu borom yi fa su loolu amee kon de tàkkoon na da nga nekk minal xaasiriina bokk ci ñi way perte ëllëg ñooñ ñun la koy wax waaye yonent amul lu muy sikk sàkk ci li ko yàlla yónnee inna lazina naka gaañ nga xam ne xaqat dafa yellu xaqat dafa war alayhim seen kaw lan moo war ci ñoom kalimatu rabbika mbugulum sa borom ñoom laa yuminuuna du ñu gëm walaw jaathum bu dee da bu doon dafa dikk ci ñoom kullu aayatin bépp kaawteef xaat duñu tax ñu gëm mukk xataa yaraw bañ jàkkaarloo alasaaba mbugal ma al alima ba di aji metti loo mën a wax ciy kaawteef ak ciy kiimtaan du tax ñu gëm mukk ndare bu danoo jàkkaarloo mbugal mi tiim leen nara dal ci seen kaw waaw falaw laa kaanat ana lu woon mu nekk xariyatun ab dëkk lan moo tee woon dëkk boobu amanat mu gëm la jiitu mbugal may di wàcc ci seen kaw ah su ko defee fa nafaaha da koy daal di jëriñ imaanuha ak gëmam illaa xawma sa ndare bu nitu yonent yàlla yunus ne ñoom yunus woo na leen ñu weddi ko mbir ma metti mu gedd ciy waxin dem yàlla yedd ko mu delsiwaat woowaat leen bi mu delsiwaatee woowaat leen ñu gëm waaye ñeneen ñu ko fi mas a def ñu diglay tëkku mu mujj mujj ñu gëm waaye yunus nag moom def na ko illaa xaw ma yunusan ndara nit yonent yàlla yunus ne ñoom daal dem na yàlla gedd dem ba ni ngeen ko jànge jën wa wan na kook la mu doon wax ci biiru jën waag histoire boobu jàng ngeen ko ba muccee ba dellusiwaat ca ña mu doon woo ci ndigal sunu boroom ñoom dañ koo gëm moo tax ma ne illaa xaw ma yunus ndax lu lu yont nit yont yàlla yunus ñi lamma amanoo ba ñu gëmee ñoom kasaf naa ca lañu ñu dindee ca lañu ñu wuree ca la ñu wuree asaabal xis yi mbugalum gàcce ma fil xayaati ci dund ga jeex ga di àddina addunyaa ga di aji jege jeex te mooy àddina anhum ñu teggi teggi leen ba ñu ñëw leen yunus woowee ñu gëm ci la yàlla teggi mbugal ma ci seen kaw wa mataanaahum ñu yóbbal leen ñu jox leen ay ay xéewal ilaa xiinin ba bañuy faatu tàggoo tàggoowuñu ak xéewal ci gëm gi ñu gëm yonte yàlla yunus bañ ko gëmee rek ca lañ teggi mbugal ma moo tax aay bi mag ñi dañuy def su mbas amee dañ koy bind suñ ko bindee am na nag doxalin yu baree bare falaw laa kaanat xariyatun ba ca ba ca wa ilaa xiin mag ñi su mbas daan am comme lii am Covid 19 bi ak yu mel na moom yàlla nañ ci dégg rekk doy dégg sax ëpp nañ ci te yàlla na ko fi yàlla jële mag ñi dañ daan bind aaya bii def ko saafara jox ko seen njaboot ñu di ci naan nee nañu ku ci naan jàngoro du la dal juróom-ñaari yoon lañ ko daan bind dañ daan bind faatiha benn yoon bind aaya bi juróom-ñaari yoon tëje ko salaatu ala nabi jàmb ko def ko saafara di ko jox nit ñi di ko naan ku ca naan jàngoro bi du la dal sëñ Maodo santaane woon na ko ñu defoon ko ca taay choléra bu metti ba waaye yàlla musaloon nañu ci léegi nag nit ñi dañoo gëmatul ñaan loo wax ñu ne ah te ñaana nga fa mu nekkoon nag ñay ñaana nekkul fa ñoon fa ñay ñaanoon bu jëkk nekkoon ñiy ñaan ñoo nekkatul fa ñay ñaan bu jëkk nekkoon waaye ñaan ma nga fa mu nekkoon bu jëkk aay ba ñu daan bind mi ngi nii ba léegi soppikuul benn waaye dani yéen daal ah, seen papa yi ñoo leen gën a gaaw ñaan parce que yéen daal yéen bu jëkk daal la ñaan gënoon a gaaw la ñaankat yi gënoon a saf quoi ma ne ko waaw dëgg la dëgg la mu ni ñaankat nañ meloon bu jëkk léegi melatuñ ko quoi ma ne ko dëgg la ma ne ko mais itam ñañ daan ñaanal bu jëkk bokkatuñoo ñii ñu ñaanal quoi parce que ñañ daan ñaanal bu jëkk dañ daan yem ñu daan yem jël seen ñaan rek yem set wecc koo ko gën a yomba ñaanal ci alxuraan ku sellul waaye itam bu jëkk ñu daan ñaan dañoo sel waxuma ni ñiy ñaan léegi selluñu de waxuma léegi ñiy ñaan léegi it selluñu ñiy ñaan ba tey ñi ngi sell seen kemtalaay kàttan ñiy ñaanu ñi ngi sell seen kemtalaay kàttan waaye nag ñu jëkk ñaa gën a sell nag nañ ko nangu ñun ñëpp ndax loolu mooy li am mi ngi noonu nee nañu daal ku ci naan ñetti fan bind ko saafara def ko naan ko ñetti fan jàngoro mbas bu mën a am dana la teg yàlla ni walaw saa bu ràbbu ko sa borom yow yonent bi la na dana gëm man képp ko xam ni di nekk na ca suusa kulluhum ñoom ñëpp jami an mboole seen afa anta mu ndax yow tukkiru da ngay forcé anase nit bëgg leen a gëm loo te soobul suñu borom xataa da nga leen a bëgg a forcé xataa na ba ñu nekk moom i neen di way gëm ba maakaana nekkul jaaduwul li naf si ñeel benn bakkan ta nekk li naf si ñeel benn bakkan antuumi na mu gëm إلا بإذن الله إن داري بوتي نام نام سونو بوروم كين مون فخي با گم لودو سونو بوروم موم لا بگ نيه رك بگ nga گم دا دي گم مي بو فكنتي ني ميني بگول nga گم دو بگ گم ويجعل ويجعل يالا دنا واتيه dana wàccee arriji sa mbas ma yàlla dana wàccee arriji sa mbas ma mbugal ma yàlla dana wàccee arriji sa covid 19 ba moom ngeen di wax nan korona la yàlla dana wàccee korona bi àll la ci gaaw gaa a nga xam laa yaaqiloona xeluwuñu xeluk settantal gëm aaya alquran ci ñooñu la koy wàcce ñooñu nag bu ko wàccee ci ñoom ba pare mën naa bañ a ci ñoom mën naa law ba laawaale ku set wecc ku baax ku jub ku mën a jaamu yàlla waaye ah laa tusibanna alladina salaamu minkum xaasa ba ngeen jàngoon ci ginnaaw ñax gu wow daal léeg-léeg mu lakk ba lakkaale gu tooy léeg ñax gu wow lakk ba lakkaale faf gu tooy mu ngi noonu waaye nag boo nekkee ci àll ak daay tàkk jàppe fu ne nga bañ mu rey la nooy def te nga yor almet dangay taal geneen daay waaw boo nekkee ci àll daay jàppe gauche jàppe droite wër la amoo foo jaar foo jaar daay gi rey la te mi ngi ñëw ak séegul taalal geneen daay rek boo taalee geneen fi nga nekk googa tàkk dem nga taxaw ca ñax mee daay gi di lakk te ak séegul boolaa mooy accès dana fekk nga taal tàkk ba sore nga taxaw ca loola la nga taaloon mu tàkk wër la nga dem doxee say soxla loolu nag ay wax la loolu ma wax nii ay wax la kon daal moom boo la daay jiitalee daal nga yor almet daay gi jàpp gauche droite fu nekk wër la ñu naan tey mu dee fu muy jaar fu muy jaar làmbal sa poos génnee sa almet taalal geneen daay rek waaw bu goog a tàkkee ba dem foofa àll lay doon nga taxaw fa geneen gi la waroon a lakk bu ñëwee day tàkk wër la nga dem sa yoon loolu ay wax la waaye daal wa yajcalu rijsa ala allazina laa yaqiluuna xul waxal yow yonent bi ni leen unsuroo muñandiku leen xool leen maasa la nga xam ni fi samawaati mi ngi nekk ci asamaan juróom-ñaar wal ardi ak suufi juróom-ñaar xool leen asamaan ak suuf li ci nekk ci kéemtaan yoo ñu mën a gëmee yàlla waaye wamaa tuxni du jariñ tus ci yéen al ayaatu kaawtéef yooyu wan nusuru ak waare googu leen yonent di waar du ko jariñ lu jariñ tus am xawmin ci nit ñoo xam laa yuminoona na mu ñoo gëm yàlla wa hal yantaziroona ñoom déet ñuy mbuñe niku ci weddi googu ñu weddi yonent bi dara du leen ca fekk illa misla ayaami lazina lu dul mel nag eh, bis ya nga bisi gaa ya nga xam ni xalaw wéroon nañu demoon nañu min xablim la leen jiitu woon yéen ñoom waruñoo xaar dara ci mbugal waruñoo xaar dara lu dul la nga xam ne moo daloon ñëwet doon bu jëkk muy ay duma rek xul waxal yow yéen tamit nee neen fantasiro mu leen buggal moom duma yooyu indi naka man maa ko maa ngi ànd ak yéen indi naka man minal muntasirina maa ngi muñandiku ànd ak way muñandiku ni maakum ànd ak yéen ñu xaar ni bugal moom su ma topp nag bu mbugal ma ñëwee nu najji ñu musal rusulanaa sunu yonente ya wallazina ak gaaña nga xam ni amanoo gëmoon nañu ka kasaalika naka noonu ñu leen musale xaqan ci dëgg xaqan yellu la lu xaqan muy lu yell mbirum nekkam muy lu war alenaa ci ñun nu najji noonu la ñuy musale almuminina jullit ñi xul waxal yow yonente bi ne yaa ayuhan naasu eeyéen nit ñi in kuntum dem nekk ngeen fii chàkkin di sikki sàkka min diinii sama diini ji naan dëgg la dëgg wala abudu du ma jaamu allazina ya nga xam ni taabudoona yéen a ngi koy jaamu min dooni laay ci taddu yàlla walakin li fi nekk nag abudu danaa jaamu allah yàlla allazi yàlla ma nga xam ne tatawafaakum moo leen di ray ci jël seen ruu yi wa umiltu digaleef na ma an akoona ci ma nekk minal moominin ci way gëm ñi dégg nga wa waxeef na ñeel ñeel ma wa waxee wa an aqim wax nañ ñu taxawalal boog wajaka sa jëmm ji li diine ñeel diine xaniifan ngay jeng jëm ci diine jeng wan ganaaw lu dul diine wala tàkkoo na na rikk bul nekk yow yeneen tibi xam na ne du ko nekk de minal musrikiina bokk ci way bokkaale ñi wala taddoo bul jaamu min bul wéetal min dooni laay ku dul yàlla maako koo xam ne laayan faw ka du la jariñ boo ko jaamoo wala yaduru ka du la lor boo ko jaamuwul fayin faalta ndeem def nga lii ma wax fay naka naka yow isan kon bu dee da ngaa jaamu koo xam ni du la lor ci bañ jaamu gi du la lor ca jaamu ga soo ko defee mina zaalimina bokk nga ci nga xam ni way tooñ dañ waaye yam saska ndeem namm na laa laal laalale allahu yàlla bi durin ci lor yàlla bu la naree indi lor ci feebar ak ñàkk falaa kaashifa déet jenn aji wuññ jéet jenn aji delloo la woo di ñeel lor googu wala ñàkk googu illaa ku dul moom sunu borom déggal wax ji illaa huwa yàlla rek ko mën a delloo kon boo déggee wax ji yàlla dana delloo lor bu doon ñëw yàlla dana delloo ñàkk bu doon ñëw kon moom lañ koy ñaan mu delloo wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa la illaa huwa wa in yamsaska ndeem nam na laa laale allahu yàlla ndeem nam na laa jàppale moom yàlla bi durrin ci ñàkk gum nar a indi ci yow ak feebar fala kaashifa déet jenn aji wëññi déet jenn aji yëkkati la di ñeel feebar boobu la hoo di ñeel ñàkk googu illaa huwa lu du moom yàlla wa in yurid ka ndem nam na la bi xayrin ci yiw yàlla bu la naree indil aw yiw fala raadda déet jenn aji delloo déet jenn aji yëkkati li fadlihi ñeel ngëneelam loo lii ah nga xam ne moom la moom moom la nar a indil kenn mënu koo delloo kon xam nga yàlla dana bëgg a jox nit xéewal ci biir dogalam yi mu boole ca xéewal gi waaju du ci jot ndax ak caay-caayam mu delloo ko dana indi nit wërsëg ba ak mu dagg ko lépp ci dogalam la mais ci caay-caayu waaji la koy delloo yu siibu dana jotale moom yàlla bii ci xéewal yooyu man ya saaw ku ko neex bi min ibaad yi ci jaamami yàlla xéewala mi ku ko neex la koy jox ci jaamami waxoo moom yàlla alxafuur mooy jéggalaa kon ba rahimu mooy yërëmaa kon ba xul waxal yow yonente bi ne yaa ayuha naasu éeyéen nit ñi xat ci dëgg-dëgg jaa akum na leen alxaqu dëgg ga mi rabbikum mu tukkee seen borom fa ma ne te daa ku jub jaar ci dëgg gi mu neex la nga jaar ca ba jub fa innamaa xamal ya te di jub na moom li na si ñeel boppam ndax su yoolu ku jub yow yaa koy yooloo yow mi jub yoolu ki jub wa man la ku sànku fay na maa xamal yeddi lu sànk na aleha ndax lan sànku dumay ku sànku yow lañ koy duma yow mi sànku wama ana déet man bi wakiilin ah, may koo xam ni dama dama war a forcer aleykum ci seen juggoogee du man la war woote rek ma ci war nag yàlla dane ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man du ñi nga bëgg ñu jub mu neex la rek ñoom nga bëgg ñu jub ñu daal di jub ci saa si déedéet yàlla rek moom lay neex mu jubal ku ko neex yow daal wat tabi na nga topp maa la nga xam yuuxaa def na déey def na yónnee aleka ci yow mu jóge sa borom was bir muñal seen lor yooyu ñu lay lor muñal seen ŋàññ googu lay ñu lay ñu lay ŋàññ ñoom ñu jubul ñoom ñu gëmul lor yeeg ya ŋàññ yi muñ ko ku bëgg a jëm ci yàlla da nga ko muñ de loo baax baax baax soo jëmee ci yàlla say sikk yow la feeñal sikk yi nga am mu nëbb dañ koy feeñal yi nga amul ñu karee ko teg ko ci wet di ko wax waaw wat yow wat tabi maa yooxaa ilayk yow li la yàlla sant rek nekk ci was bir te nga muñ rek loolu ñu lay jéeman na xaral gis nga koo gis mu jëm ci yàlla li ma la wax léegi rek boo baaxee ñu ni ci kaw la baax da waaye ak bon ci biir waaye yow mi bon ci biir bon ci bitti nag ak muña rek xataa yaxkuma ba atte allahu yàlla waxoo moom yàlla xayrul xaakimina mooy ngën ji atte waay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu